laan bikum fanweeri million moom la ñu laaj képp koo xam ne fa ngaa bëgg a samp sa ndënd laaj réew mi candidat 2024 la dépêche yéen kaay moo ñu ko xamal source a yéen kaay dëggal ko ba pare nag fa caa yokk ne candidat fa baree bare baree bare bëpp loxo fi mu toll nii 170 dem nañ jël seeni i fiche yéen kaay bi na ma nag faay ragal yëf yi yegg ñaari téeméer ci ñu bëgg a nekk candidat Sud Quotidien mel ni courant leen gis nga candidat yu bëri yooyu nekk guñ candidat de xaaral bi nekk seen kanam ñu bëri si ñoom fa ñoo nar a fori new fañ leen di seppi duñ bokk ndax duñ matal parrainage bi yéen a kaay bi ne ñu yor wàllu wote yi DGE xamal nañ ndaje ak woy politique yi ni ki démb xamal nañ réglage bu mujj ci wàllu parrainage bi mandataire nag ña ca gën a bëri la leen jaaxal mooy li ñuy wax doublon externe maanaam koo xam ne fa parrainé lu ëpp ñaar ba ñetti nit ñam parrainé ñëpp ka ca jëkk a joxe rek kooku la bosam di baax ña des fa ñuy fori new moo tax fa ñoo war a xam kenn ku ne ci askan wi benn candidat moom nga mën a parrainé <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne njiitiram Macky Sall ak Amadou fa ñoo dajee ak kàng kàngamu benn bokk yaakaar ya vox populi ne faa leen di wax ndaje ma la ca tukkee yaaw seetal Amadou Ba juboo na fa ak Abdoulaye Daouda Diallo joxante nañ la ko waxtaan ci jàmm ak salaam l'observateur na ko faala ci yokkal moom Amadou Ba fa signé ab pacte d'engagement ba tax njiitere Macky Sall na leen xëy faa bëgg ngeen xam ne ndam li mu ngi suñ doxo les se ko yéen a kaay na ko xëy waa PS ya fa ñoo mer ba futt nag fa mel ni nag yaa leen merloo ndax tànn gi nga xam ne tànn ko coordinateur parrainage bi te na seppi boole woo leen ci loolu leen métti ba fi mu toll nii Aliou Ndoye fa sàkku ñu amal réunion daar daar ca seen biir ñoom waa PS ya Vox Populi mel ni ko naan ko hëy Aliou fa mel ne sa mer mi léegi tey mu giif de ndax njiitëram Macky Sall na fa bëgg tabbu ay adjoint ci coordinateur u parrainage bi te su boobaa yéen waa PS la cay dugal su ko defee mer mi fay jeex li jeexagut nag mooy coow li dox diggante ñu yor wàllu wote yi DGE ak Ousmane Sonko ba nga xam ne fañ koo bañ a jox fiche mu uti parrainage ah. yow fa ngay xool Ousmane Sonko fa kalaame ci yoon ne li ñu def du dëgg du yoon ay avocat am ñoo def li ni mel maître Bamba Cissé na ab kalaame ci ëtt attikaay bi le quotidien yéen kaay moo ñu ko xamal le regard yéen a kaay na avocat Ousmane Sonko yi kay fa ñoo contre attaque Dakar presse a kaay na Sonko bàyyiwut yëf yi mu sedd de fay dem ca yoon fii ak ñaari fan nag ci la attekat bi di joxe dogal bi dogal bi waa Pastef fi jël nag ci seen candidat a benn candidat ci ñoom jàll loolu moo tax ñu nekk ci ay calcul ak stratégie Baye Mbaye responsable Pastef ca Kaolack Medina Baye Niass ma ngay wax ay sikki sàkkam ca Dakar Times leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja moo ne wata 2024 yi ay premier ministre ñoo ci nar a dajee ñàkkante mbëkkante ci seen biir ndax ku nekk fa bëgg a nekk président yaaw fa ngay xool sa Seck Mimi Touré Amadou Ba Boun Dionne Souleymane Ndéné Ndiaye Abdoul Mbaye ay candidat lañ te mos nañoo nekk premier ministre l'évidence yéen a kaay moo ñu ko xamal bés bi yéen a kaay moom réew mi muy El Hadji Ibrahima Sall fa leeral nag ne moom partem bi amul benn contrat ak APR waxuma la ak benn bokk yaakaar pour muy leer ka leeral programme am su ko sénégalais falee président muy El Hadji Malick Gakou ma ngi koy wax ci la mandat yéen a kaay Vox Populi ne maître El Hadji Diouf tamit ma ngay dëggal candidature am beneen candidat buy laaj réew mi Khalifa Sall la dépêche yéen a kaay fa ñoo xamal ne jamono ji ma nga ca diwaanu Saalum fa fay xamal mu duppee mottali yéene yéene réew mi moom Aly Ngouille Ndiaye yéen kaay bi fa ñoo xamal léegi tey mu tontu ci leeral fay ñi bëgg a bokk nag ci outil parrainage ngir Amadou Ba benn bokk yaakaar mooy seen député ya cinquante mille parrain moom lañ fas jox Amadou Ba l'évidence yéen a kaay ñu ko xamal Abdoulaye Seydou Sow ne man rek deux cent mille parrain moom laay jox Amadou Ba fii ci Kaffrine direct news mel ni ko leen gis nga APR yéen ñooñu yéen ay seen biir yoor yoor yéen kaay fa jox kàddu Dame Mbodj mu xam ne moom it candidat la fay laaj réew mi waaye fa caa yokk moom Dame Mbodj ne gis ngeen wote kaay fa xëy du ñu xamal ak candidat bu parti bii di PUR Serigne Moustapha Sy fa tànn Aliou Mamadou Dia ngir mu nekk seen mbër yéen kaay bi nag nee na waa ji ku xool jaar-jaaram rek fa nga koy respecté fa jàng ba yëy kay dee wala fajir yéen kaay ne waaye yeewi askan wi kon fi mu toll nii mbiru parrainage bi bopp sa bopp la de nu golo xam boote doomam Dakar Times ne remaniement coppite gi ñu war a ànd ci gouvernement bi su yeboo njiit réew Macky Sall def ndànk de ndax fa xam ay risque ñu def vote sanction <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca Seydi mooy na jëwriñ ju ñu dénk kopparu réew mi Moustapha Ba li mu wax naan suñu wàllu koom-koom fa mucc ayib ak fa baaxak li muy wax ni yëpp fa xam loo xamante ne fa ko weddi te mooy li askan wiy dund yaaw seetal su fekkee fa ngay wax suñ koom-koom fa yokk fa am doole ba pare góorgóorlu yi askan wi ñu ngi bëgg a dee yëguñu ko waa léegi yokkute ba ba njëriñ la am kon njëriñu toxal ancienne piste ba préfet bu Ndakaaru ma ngi koy leeral ci exclusif yéene kaay le regard yéene kaay ne école le cinq bii la élèves di dem jàngi waaye école mbaar gattax yi fa ñoo bëri te élèves jàng jamono ji 24 heures yéen a kaay ne ubbite école bii fa nar a doy waar de l' na ko faa xamal leen njàng mi moom ren école faw mu am ay yëngatu ay yow fa ñoo nekk ci parrainage bi suñ paree fa ñuy dem campagne suñ paree fa ñuy def élection njiitum réew loolu fay gàllankoor njàng mi leer laa neen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke fa jël dogal andi ak coppite ci doxalinu wàlluk diine njàngale maag yeneen yi ni mel ca dëkk bu sell ba la di Tuuba enquête yéen fa ñoo xamal ne dogal bi xalifa bi jël mooy fi mu toll nii képp koo xam ne fa ngaa bëgg jiite ab jàkka faaw fa ngay sàmmwante ak njàngalem ku tedd ki nguurug Sénégal d'accord nañ ci projet boobu xalifa bi di doxal laa si ne kaay ne fatwa bu bees tàq moom la xalifa ba génne ka ñu génnee woon ca piscine hôtel Radisson te mu faatu woon di ab xale bu tuuti waa ja ñu wax ne moo ca amal ak càggante attekat ba daan na ko benn weeru kaso bu muy tëdd laa si ne kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom la l'observateur mooy mbir mu yéeme te garaaw yaaw fa am ay xale yu góor ak xale yu jigéen fa ñoo dajaloo ci ab appartement nekk fa daal di def yëfu saay-saay di sàcc di def yu bon yéene bi na teg nañ leen loxo nag ca cité mixa la yëf yoo xamee fukki ndaw lañ ak juróom-ñaar am na ca ñoom juróom-ñaari xale yu jigéen <laughs> waa ma ne xale yu jigéen yu tuuti ñàkk kilifa dajaloo ci ab apartement di def lu leen saf te bon te ñaaw fa ngeen di yàq seen ëllëg rek